asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sunu sang bu baax bi sunu sëriñ sunu lépp say dongo di sa njaboot di waa Daaru Salaam Typ ñoom ñëpp ñoo nekk nii teew sukk fi sa kanam ngir siyaare la ak joxewaat seen bopp yeesal seenu njëbbal yeesal seenu bàyyeeku yeesal seenu ñàkk tànn te ànd ko rafetal fi sa kanam loolu nag ñoom ñëpp ngi nii waaye lañ ci jiital mooy sa doom ju baax ji di Cheikh basiir mu fi jóge nga xam ne waxtu wi daaw moo jiite woon liggéey bi ta yàlla def mu wàcc ab liggéey bàyyee nu des ci liggéey bi ñun ñi ne ci di ci jéemantu ñoom ñi ñëpp góor ak jigéen ñi ngi maase di la ko siyaare ndax booba ba léegi suñ borom def na ñu ngi soog a jàkkaarloo ak yow ci mu yaatoo nii ba tax na kon nee ñu ngi la koy siyaare bu baax a baax a baax di la dolle ñaanal suñ boroom bàyyi la fi ba naa li nga am yëpp fas yéene ko liggéey liggéeyal ko sama maam ju baax ji nga fi toogal nga àggale ko te ànd koog noonu. ñoom nag dañoo xam ne dañoo am tawfeex yoo xam ne bariwul ñu koy am ndax xaas la ndax kuñ ne sëriñ Tuubaa daa ñëw ci sa buntu kër kenn ku ne ci yow loolu ñëpp mënuñu koo am kat te xaas ju rëy la ñoom nag xam nañu xam nañu ne loolu yëmbul te tuutiwul itam ba tax na loolu ak cant rek moo ci war leen seen siyaaru tey jii daanaka seerub sant rek la ndax sant gi li ci war ñoom mënuñu ko waaye nag dañuy jéem rek la ca des mooy xam nañ ne tëggooñ yenn coona xam nañ ne it sa kër nga ñëw waaye boo gisee ba nga ñëwee ba léegi kenn toogatul seen yitte yëpp ñu def ko ci liggéey bi dañ ko dugal ci biir cant gi ma wax te ab taalibe nag li ko war mooy li ma wax léegi muy sëñ bi misaal na ko muy sifaatu saadixal muridi la ci jiitu mooy mbëggeel gi mbëggeel gu sax gi tam dëggu te loolu lépp gis nañ ko ci ñoom la ca topp muy topp ndigal te sax ca kon nag nun li nu war nun tam ak lii ñuy jéem a def muy li nga bëgg rek muy jéem a yëkkati yitte nit ñi jéem a yëkkati seen pësteef ak jëme ko ci seen bi ñun nag suñu yitte ak suñu pësteef suñ ko yëkkatee ci yow rek lañ ko jëme ndax yow si lépp danga ko jox suñ tubaa ba xëy di suñ tubaa kon nag ñu ngi jéem a yëkkati suñuy pas-pas ak jéema yékkati yëkkati suñu yitte ak suñu yéene jëme ko ci yow ñoom ñii ñëpp itam biñ biñ dajaloo xam nañ ne ab taalibe addiyee daa bokk ci sarti ab taalibe ndax tuubaa li abdin muridin saadixin lahu bi xidmatin ba mu ko waxee aw bi hubbin aw hadiyaati la ci teg kon ab taalibe ni mu waree liggéey war a sopp sëñ bi addiyee noonu la ko war a joxee ba tax na addiyee ji li néew ko bari ñoom ñoo ko dajale te xeeb ko lool tey tey tey tey tey ñaan nga dimbali leen ba li ñu jéemantu ñu man ko waaw muy lii njëriñu addiya sëriñ bi defal leen ko muy ñi ci am lu néew ñi ci amul dara mu may leen dara ñi ci amul lu néew mu baril ko lool ña ci bari lool mu barkel ko loolu ñu koy sàkku ci yow Mbàkke lii nag mooy addiya ji nga xam ne ñoom ñëpp ñoo commencé joxe muy addee Sëñ Tuubaa ñu jox ko borom waaw ñu ngi toll ci benn million ak juróom-ñaar fukki junni yu manqué benn waaw kon eh, jigéen ñi it seen tool alal ba ji bisimilah jigéen ñi ñoom son son xaddi jàng nañ ñeent fukki junni seen tool alal ko sëriñ bi sëriñ bi kàddu yi nga xam ne dama koy jottali itam ci turu sëñ bàcc mii ci ci turam laa koy jottalee ndaxte dafa am ndigal loo fi joxe te yoon suñ tubaab li mu baaxu mooy ku war a jiitu jiitu ka war a topp topp ca rek te loolu ñu ngi koy toppe ci ak mageel mag ñi boolee fi ab liggéey ku ne danga koo ràññalal liggéey bi mu war a def moom mii nga féetale ko mbirum dong taalibe yi ñi nga xam ne ñoo ne ci fii mu mu dox sa digg ak ñoom kon nag lépp loo xam ne dañ koy def fii ci taalibe yi moom mi lañ koy defal ci ndigam lañ koy ndigalam lañ koy defee itam nun ñi itam li nga ñu digal yónni ko sëñ Moussa barki démb bam leeralal na ko ña nga ciy jéem suñ kem kàttan léegi nag Mbàkke li ci des mooy dëkk bii du ma bàyyi sax du ma wax sax di la jiitu ci li nga war a wax waaw waaye naa la bàyyi nga leeral lan dëkk bi mooy lan ak nun ñu fi nekk ñooy lan jërëjëf Mbacke. sëriñ bi dafa wax ne mi ngi sant bu baax a baax. mu ne cen cant gi nag fañ koy tàmbalee day sori lool waaye mënees na koo tënk. mu ne sant suñu borom mi ñu boole ak sëriñ bi sant sant sëriñ bi muy suñu lépp tey ak sant suñu kilifa yi nga xam ne moo ñu jiitu ka ca jiitu mooy Cheikh Mouhamadul Bachir moom mi nga xam ne moo amoon ndigalul sëriñ bi mu ne ñun ñu wuti barab fu ñu mën a jaamoo yàlla di fa liggéeyal sëriñ bi ci sunna ci suñu lépp mu ne lam njëkk a woyal ci ndigal li mooy ñëw fii mu ne te ñu koy wax Daaru Salaam tiit mu ne Daaru Salaam mi ngi fii ci wet gi soriwul mu ne fa la kër gi nekkoon ba li ëpp ci njabootu sëriñ bi foofu la ñu àdduna waaye fii ci tiib moo doonoon tooli sëriñ bi mu ne ñu nekk fi di fi liggéeyal sëriñ bi mu ne fii la dongo yi nekkoon mu ne ñim njëkk àndal ñépp mu ne di suñuy kilifa di suñuy waajuru jigéen mu ne Daaru Salaam Typ lañ daan jóge di liggéey si fii ci Typ mu ne loolu nag moo tax Typ mooy daara ji mu ne ci jamono jii rek mu ne ñim ci mujjee waxtaanal ñim ci njëkk a waxtaanal ci mbirum ci mbirum dëkk bi daf leen xamal ne tiib moom daara la mu ne li gën a am solo ci mbokk taalibe seen pëstef gépp sëriñ Basiiru Mbàkke mii moom sëriñ Abdul Hakim leeral na ko ba noppi mooy li ci des nag mooy leeral ko moom sëriñ Basiiru ak mbokk taalibe yépp mu dëkk bi bi mu fi njëkkee waxtaan daf leen leeral ne dëkk bii moom daara la mu ne dëgg la fu mel ni fii ci mbul mu ne ci ndigal la bokk mu ne ba tax mu yàkkaliwoon tool yi sanc Touba yóbbu fa ñenn ci ndongo yi ñu di fa liggéey mu ne li tax mu wax ne tiib daara la nag moom la bëgg a gën a leeral mu ne tiib moom dëkkub ndigal la mu ne ndigal sëriñ tubaa moo ko àndi te weesuwul mu ne barab boo xam ne dañ koy defar ba mën faa jaamoo yàlla ca sax sa dàkk di fa liggéeyal sëriñ tubaa mu ne ci lépp lu baax nag maanaam ci taalibe ak taalibe moom mooy mottali lépp lu baax mu ne dëkk bi nag dëkkub ndigal la di dëkkub jaamu yàlla di dëkkub taalibe mu ne loolu moo indi dëkk bi mu ne bi mu tontoo tontu loolu wax na tiib moom daara la kon waa kër sëriñ Basiiru ñoo fi nekk ak ñi àndoon ak sëriñ Basiiru seenu njaboot ak ñii yàlla dogal ñi ak taalibe fekk si leen bokk fi nekk ñu ne di dëggal loolee nga xam ne moo doon ndigal la di fi jaamoo yàlla di fi liggéeyal sëriñ Touba mu ne bi mu waxee ne daara la nag du mën a ñàkk a tudd Touba Mbul dëgg la Touba Mbul daara la waaye dafa wuute ak tiib Touba Mbul mu ne fekkoon nañ fa ay nit mu ne daf fekkoon nañ fa ay nit ay mbooloo nekk fa moo mbooloo moo xam ne ñu waroo ay pëstéef mu ne ñu bokk ñoo xam ne li leen tax a jóg bokkuñu ko mu ne ndax Touba Mboul ñu dul ay murit ña nga fa ñu dul ay wolof ña nga fa moo xam séeréer la moo xam pël la moo xam tijaan la moo xam xaadar la mu ne ñooñu ñoo bokk nekk Touba waaye sëriñ Touba nag fi mu jiitu waaye faw fow dara dootu ko mën a jiitu dootu ko mën a jiitu waaye teewul nag moom mii sëriñ Touba sëriñ Mountakha moo fa amoon ndigal mu nekkoon fa waaye li mu ne waaye li tax mu wax ne tiib daara la daara la itam mu ne tiib bokkul ak mbul ndax Tuubaa mbul ñeneen ña nga fa ñoo fa bokk dëkk bokk dee jullit bokk di borom yi mbir bokk ay borom mbir yoo xam ne yu bokkul lañu mu ne li ko tax di wax it mbooloo bu xasee am mu ne faw diine dafay nekk waaye doxalinu àdduna it dafay nekk mu ne doxalinu diine dafay nekk doxalinu àdduna nekk fa loolu dafay ajo dafay ajo mu ne loolu dafay aajo ak xam xam gi ci la ciy wàllu yéen mbokk yi nga xam ne yéen la am tawféex mu ne xam gi nag yéen mbokk yi nga xam ne moom lay suñu borom jagle leen tawféex jooju ngeen bokk nekk ngeen bokk fi nekk aajo ngeen xam. dafa aajo ngeen xam. mu ne li tax mu wax ne tiib daara la. bokkut ak mbul. bokkut ak Touba mbul. mu ne loolu bu ngeen ko xamee rek. mu daal di baax. na ngeen xam ne tiib moom daara la. mu ne yéen ñi fi nekk yépp. na ngeen góorgóorlu bu baax. ñi nga xam ne dañoo àndoon ak Cheikh Mamadou Bassir ñëw fi seeni waajur ak ñi leen fi fekk si mu ne te ta ak taalib rek taxoon leen a jóg mu ne ñooñu ñoo fi nekk mu ne njaboot googu ñoo fi nekk mu ne kon nag njaboot gi li ci am solo ñu xam ne. li sosoon dëkk bi la ca gën ci ñoom la ca gën ci ñoom mooy tënku ca bañ fee yittewoo lenn mu ne bañ fee yittewoo lenn lu dul luy taxawal lislaam mu ne ak luy sàmm ab taalibe mu ne loolu moo waraloon seen yitte mu ne dëgg la nag mu ne bu mbooloo xasee am mu ne nga xam ne ñoo bokk lenn lu ñu jublu ak ñeneen ñi nga xam ne dañuy ñëw fekk si leen ca te fekk si leen ci jublu ga mu ne kon la ca am solo ngeen xam ni ngeen fi nekkee tiib moom ni mu ko waxee woon rek daara la mu ne gannaaw mbooloo moo fi nekk nag mu ne faaw doxinu àdduna du ci mën a ñàkk waaye mën nañoo ànd mu ne loolu moo waraloon sëriñ Moustapha mu bi mu doxee ba àdduna dab ko mu ne loolu moo waraloon mu yëkkati dugal ci ay kàddoom mu ne loolu jublu ci woon dara lu dul mànkale rek mu ne ndax njabootu sëriñ Basiiru gi fi nekk ginnaaw ñeneen dañoo ñëw fekk si leen fii mu ne njaboot gi màgg mu ne loolu moo taxoon mu bëgg doxin wi nekk wenn rek mu ne bu fekkoon lay doxinu doxinu dëgg wa na doon lislaam rek akub taalibe mu ne ñu def seen yitte yépp ca loolu mu ne la nga xam ne mooy doxinu àdduna bi nag mu ne loolu moo taxoon mu dugal ci njaboot gi bëgg rek gën a mànkale gën a yombal doxin wi mu ne loolu moom la fi sëriñ Moustapha Bassirou bàyyi mu ne loolu nag ak defar rekk la mu ne bu mbooloo amee mu ne ñii seen yitte gën a jëm ci lii ñii seen yitte gën a jëm ci lee mu ne loolu mooy ñi gën a jëm wéy ci ndigal rek ñi ci des i xalaat. mu ne ñi ci des it am yeneen i xalaat. xel nekk ci doxinu adduna mu ne seen xel nekk ci doxinu adduna wi. loolu faaw dana mat a mu ne loolu faaw dana mat a waxtaane. mu ne loolu moo indi waxtaan wii tey. mu ne kon yéen mbokk yi nga xam ne yéen a fi bokk nekk tey jii. mu ne na ngeen delloo ci seen xel. ngeen xam ne dëkk bii dëkkum ndigal la ndëkk ndigal Sëriñ Tuubaa moo waral dëkk bi mu ne jublu ci woon dara lu dul fu ñu mën a jaamoo yàlla di ko fa liggéeyal ci lépp lu baax mu ne loolu mooy cosaanu dëkk bii di Touba Tiit mu ne ginnaaw gi nga xamee ne faw doxinu àdduna da ci ànd mu ne sëriñ Moustapha Bassirou dafa xamoon ne loolu mën naa ànd ndax lislaam mu ne ndax lislaam lépp la boole woon loolu moo doon cosaan li mu ne gannaaw gi la taqali ko dooraam mu ne waaye sëriñ bi moo yeesal lislaam gi Ah, mu ne dëgg la daray nguur mus boole ko ci woon mu ne waaye suñ borom moo ko jox suñ borom moo ko jox àdduna ak alaaxira mu ne ko woon a ñàkk bañ a lijjanti moom sëriñ bi mu ne lijjanti bi nag weesuwul ni ko sëriñ Moussa moom sëriñ Basiiru xalaate woon njabootuk sëriñ tubaa gi fu mu fi mën a nekk ñu jiite liggéey bépp mu jiite wàllu diine ji jiite doxi wàllu doxinu àdduna bi mu ne loolu moom la fi bàyyi loolu nag ngeen xam li ko waral moo di ak defar rekk nag mu ne lu dul loolu yàq rekk lay doon sàmmanteeg seen mu ne feeg yéen a ngi sàmmanteeg di góorgóorlu seenu lislaam. sàmmanteeg seenu taalibe. sàmmante ak seenu taalibe. mu ne loolu defaru defaru àdduna ak àllaaxira rek la leen di andil. waaye bu ci àdduna àndee nag. jamono ji dem ba baat amatul kilifteef amatul. mu ne rawatina jamono ji dem ba baat amatul kilifteef amatul. sàmmin wi sàmmin wi sàmminu njaboot gi. mu ne loolu dana tax sàmminu njaboot wi. dana mu ne loolu dana tax dana am rax lool. njaboot gi dootul neex a sàmm. mu ne day tax njaboot gi dootul neex a sàmm. loolu. mu ne loolu. mu ne loolu rek la sëriñ Moussa moom sëriñ Basiir bëggoon. mu ne bëggoon lu mën a sàmm njaboot gi rek. mu ne kon li ci am solo. mu ne barab bii yaatuwul. mu ne nam ko waxoon ne tiib daara la kon ñi fi nekk kon ñi fi nekk yéen ñi fi nekk na ngeen góorgóorlu ba muy daara ngeen di ay dongo di ay taalibe bu ngeen ko defee day gën a jëm kanam mu ne day gën a jëm kanam rek da gën a yëg seen yéen seen bopp mu ne da ngeen di gën a yëg yéen ci seen bopp ak defaru da ngeen di mu ne dangeen ngeen gis ci seen bopp ak barke. ngeen di gën a yëg ak yiw. ngeen di gën a yëg ak yiw. mu ne yiw woo xam ne. mu ne fii ci yiw fii yiw woo xam ne ci àdduna la leen jëlee. ci yiw àdduna la leen di jëlee. jëme leen ci yiw àllaaxira. mu ne loolu moo di. mu ne fii ñoo ngi sax ci jaamu yàlla di sàmmante ak suñu taalibe mu ne loolu suñu defarul rek lay indi muy defarug biir de ak defarug bitti defarug tey ak defarug ëllëg mu ne lu dul loolu mu ne ak tumuraanke rek lañu indil mu ne ab bekkoor rek la indil yàlla nañ ci yàlla musal yu gëlëm rek la mu ne ak xel yu gëlëm rek la indil xol yu lëndëm rek mu ne xol yu lëndëm rek la ñu andil. mën naa ko mën naa ko mu ne mën na di ko lim fii ba mu guddi lool. te du jeex mukk waaye tënk gi rek mooy loolu mu ne na ngeen góorlu delloo seen xel mu ne delloo ci seen xel mu ne ña ca nekkoon nañu gën a gindiku bu baax ñu xam ne loolu mooy seen njariñ ña ca gindikuwul nañu gindiku te ngeen xam ne leneen lu mu doon tumuranke rek la leen tumuranke rek la leen indil. mu ne te tumuranke bi mooy li ci gën a woyof. mu ne foofu rek lañ mën a yem ak yéen. na ngeen góorgóorlu bu baax. nekk benn nekk benn. mbooloo mi fi nekk ñëpp. mu ne mbooloo mi fi nekk ñëpp. ñi nga xam ne. ñi nga xam ne. ñooy njabootu sëriñ Basiru gi fi nekk. mu ne ñi tàmbalee ñi ñuy tudd tudd sëriñ Basiru la ca dolli ko mooy la ca dolli ko moo di. gaa yu baax yi àndoon ak ñoom. gaa yu baax yi àndoon ak ñoom. bokk fu ñu jëm bokk. ñu bokk fu ñu jëm bokk lu ñu jublu. ànd ak ànd ànd ànd toppante ci ndigal. mu ne toppante ci ak ndigal. loolu moo fi noonu sëriñ Basiru. mu ne loolu moo fi noonu sëriñ Basiru. ak ñu baax ñi mu fi àndaloon. ñu ne ñooñu seenu njaboot ñu ngi fii ci dëkk bi te dëkk bii daara la mu ne kon lu mën a xew na ngeen góorgóorlu di wéy ci ndigal di wéy ci ndigal mu ne wéy ci ndigal nag ci baat rek lay mën a jóge euh, mu ne na ngeen góorgóorlu bu baax. ñi nga xam ne ñoo war a jiitu. mu ne ñi nga xam ne ñoo war a jiitu. nañu góorgóorlu bu baax nañu góorgóorlu bu baax. jaar ci yoon wañ war a aw mu ne jaar ci yoon wañ war a aw. ñi nga xam ne ñoo war a ñi nga xam ne ñoo war a toppee. nañu góorgóorlu bu baax. di jaar ci yoon wañ war war a mën a aw. mu ne loolu rëpp nag. bu njub amee rek. mu ne lépp daal di yomb. te te bu njub amul. te bu njub dara du sotti. mu ne kon li ci am solo nag mooy tënk gi ngeen góorgóorlu ci ak njub mooy dimbali mbooloo mi mooy dimbali mbooloo mi kenn ku ne njub mu ne kenn ku ne njub mooy li lay dimbali mu ne kon njub mooy su njariñ ñun ñëpp mu ne lu ko romb musiba rek la musiba rek la na ngeen góorgóorlu baax na ngeen góorgóorlu bu baax. mënees na ko firi ndax ni mu ko waxee. mu ne mënees na ko firi ndax ni mu ko waxee. nga xam ne njub mooy mooy lépp lu mu ne li nga xam ne njub mooy buntub lépp lu baax. waaye njubadi nag. waaye njubadi nag. mooy buntub lépp lu di safaan. mooy lépp lu di safaan. mu dellusiwaatee ci mbooloo mi. mu ne bu ñu dellusiwaatee ci mbooloo mi. mbooloo mi bu ñu àndee. mbooloo mi bu ñu àndee. mu ne ànd nañ war a àndee ànd ci ak njub ànd ci lislaam ànd ci taalibe mu ne loolu tawféex rek mooy li sa kanam mooy nekk seen kanam mu ne te loolu ak defarul rek la leen andil waaye bu amul nag mu ne yàq rek lay doon mu ne yàq nag amul njariñ amul njariñul kenn ñi nga xam ne. ñi nga xam ne. amuñu benn xalaat. amuñu benn xalaat. nekk ci kaw yoon wa. mu ne budul nekk ci kaw yoon wa. nekk ci njub nekk ci ak njub. ñooñu kon taxul ñuy wax. mu ne ñooñu taxul muy wax. gën leen a gën leen dénk rek. mu ne xanaa gën leen a dénk rek. ñi nga xam ne nag. waaye ñeneen ñi nga xam ne nag. dañoo am beneen xalaat. mu ne dañoo am geneen xalaat. yaakaar ci yaakaar ko ci àdduna. mu ne loolu toskore rek la leen indil. mu ne du leen indil dara. mu ngi mel ni rek. mi ngi mel ni rek. mu ne mi ngi mën a ci misaal mu leer. ne tool yaa ngi nii. ñu ne yoonu tool yaa ngi nii. kii wax ne yoon waa ngi nii. waaye kii wax ne yoonu mi ngi nii. mu ne yoon wu ci nekk xam na fa mu jëm. mu ne yaari yoon rek mooy li fi ne. jëm ca tool ya. yoon woo yoon woo xam ne mu nga jëm ca toolu dugub bu bu bu mu ne yoon wi nga xam ne dafa jël ci toolu dugub bu ñor xom rafet lool rafet lool. set wecc set wecc. ak yoon woo xam ne ak yoon woo xam ne. yoonu ñal rek la yoonu ñal rek la. bu demee jàpp ne ci ay tool jëm. bu demee dox jàpp ne ci ay tool la jëm. jëmb rek la jëm. ci ak dimb rek la jëm. ak jëmb jëmb ak jëmb rek la jëm. mu ngi mel toolu suuna mu ngi mel toolu suuna. bu rafet bu rafet. ak jëmb rek. ak jëmb rek. mu ne noonu rek la demee. nekk ci aw yoonu njub. mu ne nekk ci aw yoonu njub. góorgóorlu ci sa lislaam sa mu ne góorgóorlu ci sa lislaam sa kéem kattan. góorgóorlu ci sa taalibe sa kéem kattan. sa taalibe sa kéem kattan. yow yaay jëm fa xéwal ga. mu ne yow yaay ki jëm fa xéwal ga. mu ne xéwalu biir ak biti. jëmul ca woowu yoon mu ne ka jëmul ca woowu yoon nag mu ne lu la dal lu ne yaa ko teg sa bopp ndax yaa tumuraankeel sa bopp yaa sa bopp yaa aw yoon woo xam yaakaar tas rek la mu ne ndax yaa aw ca yoon woo xam ne tas mu ne tas yaakaar rek ak tas sa yaakaar rek moo la ciy fekk mu ne loolu nag moo waral mu ne lii ñuy def lépp ndigal sëñ Touba mu ne tàmbalee ko te ndigal sëñ Touba la. ak Cheikh Mamadou Bachir ñoom ak ñim ko àndaloon. ak Cheikh la leen joxe ndigal ku ne wuti foo jëm. boo ndigal ku wuti foo jëm. boo a jaamoo yàlla. kenn ku dem fa jëm lu dul a woo fa dara lu foo mën a yàlla. luuti woo fa dara fu foo mën a yàlla. foo mën a liggéeyal sëñ Tuubaa. taalibe mu ne ak taalibe mooy lépp lu baax. nekk ca mu ne nga nekk ca. kon kon barab bii. mu ne kon barab bii. bañ koy sàkk bañ koy sàkk. fu ñu jaamoo yàlla rek la fu ñu jaamoo yàlla rek la. ñu mën a liggéeyal Serigne Touba. baax fu ñu a dundee. ak fu ñu mën a dundee. dund ci ak njub. dund ci njub moom. ak njub moom. mooy mooy mooy daanaka mooy tax a mu ne daanaka mooy tax a àdduna. mooy tax a ak àllaaxira mu ne leneen lu dul loolu ak njubadig rek moo ko indi mooy dem ba mooy ne loolu mooy dem ba adduna amul benn mu ne adduna amul benn maanaa amul benn njariñ eh, dëgg la yàlla yàlla moom lépp mu ne dëgg la yàlla moo moom lépp waaye wane na lépp waaye wane na lépp fa la jëm mu ne fa njëriñ la jëm yàlla xamle na ko fa loraa nga jëm yàlla xamle na ko mu bàyyi nit ñi nag ci seen coobare seen liberté seen moom seen bopp. ñu ne ñu nit ñi bàyyi nit ñi seen li coobare ñu moom seen bopp. waaye nag. mu ne loolu moo tax nag. am fi nekkal ñu nekkal. mu ne ñu nekkal suñu borom. mu ne faw ñu am ñu fi nekkal suñu borom. mi ngi tàmbalee ci yonent yi. mu ne mi ngi tàmbalee ci yonent yi. gindi nit ñi képp gindi nit ñi képp. jëmale leen ci lu baax jëmale leen ci lu baax. muy seen njariñ muy seen njariñ. muy seen njariñul tey di seen njariñal ëllëg. mu ne loolu rek mooy li fi indoon yonent yi bañ noonu nëppee gisit la ña leen woon ba ci ni fi sëriñ Tubaa ñëwee mu ne du dara mu ne mu ne du dara lu du wan leen yoon wi nga xam ne mooy wi am njariñ ak yoon wi amul njariñ mu ne loolu dong la mu ne coow li coow li moom loolu rek la mu ne kon yéen mbokk taalibe fi ne yàlla defal tawfeex ngeen dëkk dëkk bi ci dëkk bi mu ne yéen ñi yàlla defal tawfeex ngeen dëkk ci dëkk bii di Touba Typ te dëkk bi dëkkum ndigal mu ne na ngeen góorgóorlu baax seen kéem kàttan mu ne te fas yéene dëkk ci dëkk bi dëkk ci njub dëkk ci ak njub ndax ngir mën a sàmm seen lislaam ngir mën a sàmm seenug a sàmm seenug taalibe mu ne ak taalibe mooy lépp lu baax mu ne ndax ñëpp ñoo koy jariñoo mu ne bu ñëwee kii ku amuk taalibe la mu ne ñëpp mën nañ koo jariñoo waaye mën naa mën naa jariñoo ñëpp mu ne ak taalibe loolu rek lay jariñ day defar nit àdduna defar nit àllaaxira mu ne te ñun ñëpp fi mu toll nii ak taalibe rek la ñu wuyoo mu ne kon nañ fexe ba loolu dëgg ci ñun dëggoo ci ñun bu dëggoo ci ñun muy suñ njariñoo tey tey ak ëllëg mu ne na ngeen góorgóorlu baax mu ne wax ji yëpp weesuwul ngeen góorgóorlu dooni jullit dooni taalibe mu ne te góorgóorlu tegu ci aw yoonu njub mu ne lépp loo xam ne mu ne ci aada ji nii ñuy dunde nag mu ne kenn ku ne fa nga ne jubal fa fexeel ba jubal fa. rawatina ñun ñi nga xam ne. rawatina ñun ñi nga xam ne. dañoo nekk ci dëkk boo xam ne. dañoo nekk ci dëkk boo xam ne. dëkku dëkku dëkku ndigal rek. dëkku ndigal rek la. dëkku wéy ci ndigalul yàlla. mu ne wéy ci ndigalul yàlla. di wéy ci bàyyi tereem. di wéy ci bàyyi tereem. loolu rek mooy moo moo moo di dëkk mu ne loolu rek moo di dëkk bi. mu ne kon nag ku fi nekk. na nga góorgóorlu bu baax. ne mooy moo moo moo fi andi dëkk bi. mu ne li nga xam ne moo fi andi dëkk bi. def ci sa xel def ci sa xel. def ci sa xol te def ci sa xol. def ci sa yitte te xam ne loolu mooy sa njariñ. leneen loo fi leneen loo fi mu ne leneen loo fi dugg it. yaa ngi yàq yaa ngi yàq yaa ngi yàqal sa bopp. mu ne kon mu ne ñëpp lay waxal. mu ne ñëpp samay mbokk taalibe lañ. mu ne li mu yéene boppam rek la leen yéene. li mu bëggal boppam képp la leen be la leen bëggal. xam na ne aw yoonu te xam na ne aw yoonu njub. moom rek moo moo jëm fa mucc ga. mooy jëm fa mucc ga. mooy jëm fa njariñ la. mooy jëm fa njariñ la. mooy jëm fa xéwal ga. loolu na ko ñëpp xam. mu ne loolu na ko ñëpp xam. amul góor amul jigéen amul mag amul ndaw. ñëpp nañu góor góorgóorlu ci aw yoonu njub. tey gën di fas yéene toppante. tey gën di fas yéene toppante. di wéy ci ndigal. loolu rek mooy li nga xam mu ne loolu rek mooy wan mooy li ci nekk mu ne sëriñ Moussa moom sëriñ Moussa moom Cheikh Ahmadou Basiir yebaloon na ko fi mu indi fi waxtaan mu ne joxe fi ndigalam mu ne kon jataay bii mu ne ñëpp ñu ngi fi tey toog mu ne defe naa la sëriñ musaa woote woon demewul woon ni ndaje mi waaye day loo xam ne mu ne ñëpp ñoo ko bokk. mu ne ñun ñëpp kenn ku ci ne la lay dimbali mooy njub rek la lay dimbali mooy góorgóorlu ci jaamu yàlla la lay dimbali mooy góorgóorlu ci ak taalibe la lay dimbali mooy góor góor lu nekk ci lu baax nekk ci lu baax boo góor boolee góorgóorlu sa diine góorgóorlu sa taalibe góorgóorlu ci lu baax buñ nee lu baax nag ñëpp ñoo ko bokk boo boo nekkee ci lu baax. boo nekkee ci lu baax. yaa yaa ngi yaa ngi yaa ngi ànd ak ñëpp. mu ne yaa ngi ànd ak ñëpp. yaa ngi dimbali ñëpp. mën ngaa jariñoo ñëpp. ñëpp mën laa jëriñoo. waaye boo nekkee ci savaan wa. yow dong la. yaa la lay la lay alag nag. mooy sa àndandoo. nañu lu baax. ci njub gu baax. ci way ci ndigal. mu ne noonu rek la demee. mu ne lépp sëñ Moussa bàyyi woon rek mu ne bu ci kenn jéem a soppi dara mu ne bu ci soppi doon am mu ne kon moom mii mu soppi ko mu ne moom mu mën caa soppi dara mu ne soxla soxla wu caa soppi dara li mu fi fekkoon rek mu ne noonu moom la koy sàmmal na mu ko doon sàmmee ak suñu kilifa ya mu ne kon góorgóorlu leen baax mu ne loolu mooy ndigal li. mu ne na ngeen ci góorgóorlu baax mu ne tiib daal daara la daara nag mu ne ci fi ñuy sàkkoo ngërëm yàlla rek ci gàttal mu ne loolu rek la daala mooy loolu rek bu ñu sàkkoo ngërëm yàlla rek noonu rek la demee mu ne sàkku ngërëm yàlla moom mu ne moom ci ak njub rek lay tàmbalee ak wéy ci ndigal ak bàyyi tere mu ne loolu mooy mën a maye ngërëmal yàlla mu ne te ngërëmal yàlla moo dàq àjjana mu ne lii àjjana di neex neex kenn ku ne kenn ku ne nag kenn ku ne nag am nga sañ-sañu am nga sañ-sañu te maa ngi jóg maa ngi wuti ngërëmal yàlla waaye boo ci jógee nag na nga xam ne ci njub ngay tàmbalee ak fonk sa diine fonk sa lislaam fonk sa taalibe mu ne fonk fonkante fonk sa mbokkum jullit mu ne noonu rek la demee mu ne mën nañ fee fanaan waaye ci loolu rek lañ ne kon nag wax weesuwul na ngeen góorgóorlu way ci ndigal di watuk tere bëgg lu baax di bañ lu bon di bañ lu ñaaw di bëgg lu rafet mu ne loolu rek la mooy wax ji loolu rek la bu ko defee nag njëriñ njëriñ njëriñ njëriñal téegal la mu ne njëriñal téegal la indil njëriñal biir bit la indil jërë ngeen jëf loolu rek la demee